ak El Hadji Ahmed Aïdara bismillah tabaski bi suba la ma ci tribune yéene kay ne buñ ne waan day suba la tabaski ah nit ñi kon dañ daan tëb di dal mbir mi da daan neex lool ba olof njaay sax ne lii moo dàq suba la tabaski waaye ca jamono yoo yee xar daal daawul raar da ko daan gis xar daal daawul seer waaye tey jii borom kër yi dañoo gisagul sax luy nuroo ak geenu xar te xam nga ne ca jamono yoo yee dund gi seerul woon nii déedéet commerçant yi nekkul nekkoon ñoo fi doon nekk rek di buur di bu mi di def kon lu leen neex ak di tëkku daal ab nguur goo xam ne moo fi digoon ma yaasin ak jaal dund goo xam ne ku neex la ca jamono yoo yee olof njaay daan wax ne lii moo dàq suba la tabaski waaw réew mi kon pëcc xawloo nii ndakaaru gi ak ci biir réew mi yëpp ma ci tribune yéene kaay ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne tey boo leen laajoon dañ naan la tabaski bii bi nañ ko aj ba jëbi jamono nañ ko reporté reporté amul woon ca audience ba dee diggante Macky kon ak député am yo enquête yéene kaay ne audience ba day ak député Benno Bokk Yaakaar yoo yee ndekete la ca am yëpp waxuñu ko de ah Macky Sall ci boppam daa amoon kon am mbetta lool ba mu gisee kon député yo yëkkati yenn ci ay kaddu ci ëttu tasu xabaar yi président Macky Sall ne leen yéen en tant yéen a ma war a jàppale au lieu ngeen nekk fi kon di ma néewal doole di tàllal loxo di ma laaj yéene kaay gi ne Moustapha Diakhaté day ak député yo la ñu doon sàkku daal mooy audit yii ne mbir mi kon leer barke Rasulaay na leer te képp koo xam ni tamit tudd nañ la ci wàllum njuut njaaj ci mbirum xaalis malversation financière nañ la yóbbu kon fa ma xana doonee benn kese waaye tamit premier ministre bi Abdoul Mbaye na dikk ci assemblée nationale gée indi kon ay gindi leeral nit ñi ci décret d'avance xaalis boo xam ne yow boo ko xaymaa toll na ci juróom benn fukk ak ñeent ci ay milliards yoo xam ne kon dara da caa leerul Macky Sall ne leen yéen député yi lée majorité bi a ma war a jàppale waaye waroo leen maa néewal doole néewal doole gaa ngi tàmbale ci assemblée nationale googee ah libération yéen kay ne ñi yaakaaroon ne assemblée nationale bi assemblée nationale wu mat sëkk kon lay doon waaw waaw ànd ak kilifteef ah mbetteel kon la ñu am sax ak gàcce lan moo xew xanaa war di waxtaanee ca assemblée nationale googe waxtaan woo xam ne wu dëju la wu doog la benn député APR woo xam ne daal nekk fa di saaga Cheikh Amar rek marte Italie laa ilaha illallah di tuumaal Cheikh Amar ne ci juróom-ñetti milliards la dëju ci phosphate yee te la ca gën a doy waar mooy député xam le ne Cheikh Amar da doon kon ak wax li te moom député bi fàtte na ne gis nga buur Fuuta ak mii Macky jamono jam nekkee premier ministre maanaam primature ah doon liggéey ak Cheikh Amar moom Macky Sall moo doon jiite kon financement wu indien ya yéene kaay gi ne waxuma la ne sax nguur gii nekk fi tey dañoo lank ndaari tëdd ca suuf ne duñu fay kon Cheikh Amar ñaar fukki milliards ak ñaaram waaye suq Macky Sall yi buur Fuuta ak ah ne fi kon di xas waaji rek ak di ko tuumaal waa PDS kay politique ñoo nekk ci ginnaaw cantakun yii kon heure bi dëkk bi tàkk na yàgg na Macky Sall daal bilan bi la ma leen ca mën a wax man maître Ousmane Ngom bilan Macky Sall bii yaakaar gu tas la ak adduna bi tukki yéene kaay gi ne jigéenu APR ya day naam tuumaal nañu waa parti démocratique sénégalais waaye tamit xam le nanu ne yorin gi kon ci joowal cantakun yii dañ cee dugal wàllum cuune ñoom Mariam Badiane kon yemuñ ca nangu nañu ne ay yox yoxal daal am na ci wàllub kaaraange gi ci manifestation yi nga xam ne kon moo amoon ci Ndakaaru gii le pays au quotidien ne waa léegi nag bu manifestation dañoo nar a kon amati maarata itaali ci lu jëm ci wàllum xiif gi di ay ëmët de la bu fi amee a courant bi coupé suba ngoon gu dégg bëccëg ak fitna goo xam ni kon day jóge ci wàllum élection yu nuroog fitna yi nga xam ni kon moom la ñu laloon ci ndoddug président Abdoulaye Wade bi ñuy waajal élection présidentielle ya cey fitna ga fitna goo gee direct info nee na waa Dakar dem dikk day Mor Ngom mi ministre infrastructure wàllum dem geeg dikk geeg transport ah dalal na lii daal tax na ba waa Dakar dem dikk yoo yee nee nañu danañu wàcceewaat kon kaar yi ci kaw tali bi alhamdulilah ñi newul alhamdulilah kay mooy ñi narul tabaskee seen kër réew mi quotidien ne cantakun yi nga xam ne nag maanaam teg nañu leen loxo ci fitna gi nga xam ne amoon na fi altine ak ajuma jee coow loolee boo sagganee kon dana jur leneen de marte itali parce que nguuru Sénégal gi fi mu nekk nii daa taxaw ngir ñi nga xam ne kon ñoo doon tojote ak ñi leen yoon yëpp ñu teg leen loxo te doomu Cheikh Béthio bii di Khadim Thioune député ah moom la procureur ci boppam kon koo bëgg a déglu i ko wax fanweer ñett ci ay cantakun yoo xam ne kon teg nañ leen loxo noonu ne wax nañu de ñoom cantakun yoo jee xam le nañu ne ab opération bu ñu tuddee woon fipp jot na seeni jëwrin ñoo leen yónni te ñoom sax tudd nañ kon ay turu jëwrin ci ndakaaru gii ak ca banlieue ba gis nañu kon ay message yoo xam ne dañ ko doon yónnante ci portable ñii nga xam ne kon dañ leen a teg loxo ñoom cantakun yo waaw message su portable yoo jee lañ ca bind daal mooy waxtu fipp jot na waxtu wa jot na tolluwaayu réewum Sénégal gii ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite daal xalaatuñu dara lu dul kon suñu Cheikh Béthio mi Cheikhu Sëriñ mi nañ kon lëf li téye ko ci suñu loxo wane it suñu mer doy na waar li doy waar kay tribune yéene kaay nee na Tamsir Ndiaye Jupiter adduna wàcc ci kawam day addunaam tukki na Walf Grand Place ne Tamsir Ndiaye Jupiter tey ñeenti atu yàlla kon lañ ko mujj tëj ngir wàllum góor jigéen dooraate gaañee ci lu la neex tribune yéene kaay ne Matar Diop moom ko séqaloon tëj nañ ko ñetti atu yàlla moom ci kaso bi allahu akbar réew mi quotidien na Ablaye xam ne lànk nañ ba tëdd ca suuf ne loolu du yoon laas ne jikko buyu gi nga xaalis tey futti nañ ko ba mu ne dungu moom Ablaye maa la wax li lée décret ya lu ci tolloo juróom benn fukk ak ñeent ci ay milliards juróom-ñetti milliards yoo xam ne yow ci ñetti weer kese nga ko jëfandikoo Sud Quotidien ne Ablaye kay raw leen Samba Jul de Caam ci laas ne mooy mandargaal ne Abdoulaye Wade mii yorul jikko kilifa daal Elentine ne xaalis boobee kon dañ ko war a leeral ya ñu def nag ca 2000 ba léegi ni lay ak yi nga xam ne kon Macky Sall signé na ko ci fukki fanam yu njëkk yim fi toogee Modou Diagne Fada ne lekk xaalis ba Abdoulaye Daouda Diallo ministre budget ne nguur gi daal am na ay jumtukaay ngir yóbbu lépp ci yoon mu leer nañ loi bañ doon voté nag démb assemblée nationale googe député yi kon wote nañu ko cay tabaski suba bi directeur info ne diggante jaaykatu xar yi ak client yi a ah, mbong mbong lu gaca ne cay kan mooy jël ndam la <laughs> ma ne alaaji man daal ba ñu ma mbote ba ñu ma xar bu jigéen ba ñu ma kuy man daal naa rey rek fu mu yem neex ay xar ma rëy naag rëyul ak man yooyu yëpp intéressé wu ma man la may mooy na côtelette ya génn rek ak foie jeeg res jeeg jooju kay waay